ab velo bi ñu transformé mu nekk moto jakarta te mu yor ñaari po xëy na loolu moo nekk création bu njëkk bi nga xamante ne réalisé nañu ko ci Kër Madiabel ndaw bi moom moo créé li moom mi ngi wuyu ci turu Jibi Jànka élève ci classe première L mi ngi dëkk ci quartier Léona ci kër Madiabel ba mu amee ñaar fukki at ak benn moom doom ci Amat Dianka ak Seynabou Thiam di créer benn œuvre technique mu nekk engin explosif maanaam moto te matière yu bëri sax la jël daal di ko composé. dama toog xalaat parce que su may jàngi damay nekk di dox te yàlla moom moo ñu dimbale ñuy xalaat. léegi si laa dem si waa ji nekk ne après mu jaay ma ay fer lii moom la ñuy defaree balankaari saret après mu jaay ma ko may dagg di suude mais inspiration bi nag damay tëdd ba guddi au lieu que may nelaw ni sama waa ji damay xalaat di liggéey après may dagg di suude di suude di defar ba mu mel nii rek matière lii moteur yi jakarta la lii vélo vélo daal la baar bi direction vélo pédale la teg bi tamit tegi vélo daal calpoussière yi yooyu yëpp damay damay jël fii jël fii jël fi bolante defar dagg di suude lii du cadre développé daal de cadre bi man maa ko defar ba mel nii. ci bi muy teel la ji bi daal di gëm ay idéologie yu mu am waaye it xalaat yu mucc ayib yi nga xamante ne tey ji mu waraloon mu daal di créer ay mbir yu bëri li ci mel ni moto bii muy dawal nii ci la bokk. inspiration bi rek comme li la wax rek yàlla moom moom mooy maye damay toog di xalaat di ba ne nangama nangam war na mën a ne man moom sama àdduna damay wax ne nangam war na mën a ne lépp loo xam ne nit mu ngay xalaat rek war na mën a ne lépp lu xel laal rek dafa war a mën a ne su mantoon ne xel du ko laal loolu moo tax may xalaat ma ne naa defar comme lu mel nii rek loolu la. yéeme lool waaye it lu xel mën a nangu la ci Djiby Dianka miile mii nga xamante ne moom moo daal di créer li ni mel te moom jibi miile musta dugg ci benn école de formation lu dul ne njàng bi mu jàng ci école francaise déedéet mécanique moom jàng ma ko électricien lay liggéey déedéet xooluma fenn moom damay xool rek di inspi di liggéey xooluma fenn genre ba mu génnee sa mécanicien yu bëri ñoom dañaa jaaxle ñu ne man liggéeyuma mécanicien kon man nan laa war a def ba mën a defar lii waaw loolu la man moom damay xalaat di defaat rek même su dul lii sax damay defaat yeneen yeneen ak mais damay xalaat rek lu ma sama xel may rek. su ma su ma kii dama koy liggéey. mu jógee ci famille bu ndool lool foofe ci kartie quartier Léona ndaw biile di sàkku ndimbal ngir rek mu mën a wéyal ay création yu muy def. donte ko awma doole mais damay jéem rek ku ma si mën a jàppale daal ma jël awma doole mais maa ngi def lu ma man ku si jàppale ma jël amaguma xam-xam lii yëpp damay jéem rek. ku ma si mën a jàppale daal ma jël incha allah. mais bëtam bi gën a mag mooy dugg ci lycée technique yi ak scientifique. ku ma utal euh, foo xam ne dama fa mën a jàngee comme comme les lycées techniques tamit ma mën a jël ndax xale laa damay jàng amaguma xam-xam lii yëpp damay jéem rek bëgg naa dem si école yi gën a mag ndax comme su ma toogee si école yi am naa sama niveau BFEM am na comme lycée technique bu Thiès foofu dañuy jàngale comme technique bi. mais comme soo toogee ci école bi fii nii diggante fii ba bac soo soo ko nekkoon lycée technique xam ne si lay xam-xam bi gën a dugg. Jibi Jànka am na ay école yi nga xamante ne foofu la jaar ba mu nekkee tout tànk. école un laa dalee jàng def euh, cp un ba CM2 am sama entrant dem si sa Kër Madiabel foofu laa nekkee tamit ba am sama BFEM ba ren maa ngi def première. naka noone xale bii le mu ngi jox ay conseil ay ñoñam. moroom yi daal lu ma leen wax mooy liggéey rek nit su la yàlla wàccee fii du pour ngay xëy tëdd nelaw yeewu di lekk ceeb déedéet xel mi yàlla da kaa da la kaa jox ngir ngay liggéey voilà man képp ku may àndal soo nanguta liggéey dama lay bàyyi dëkk bi ñëpp xam nañu. ci potentiel bu mel ni réewum Sénégal mën na yaakaar ci jeunesse bi nga xamante ne moom la am ngir développer réew mi waaye ba saa si tembe Djiby Dianka moom mu ngi wone xarañte fam di créer ay mbir ba tax na mu ngi sàkku ñu dimbale ko